lu waaye nit sàkku ci doxalin yi ñu baax ni ci li yombal sa dox bi suñu borom tabaraka taala lépp mi ngi ci xasida yi dafa aadi rek eh, def ci tey ak seetantal ak ànd ci ñu ko xam bu bañ ci lee maanaam boppam ndax léeg-léeg dinaa faral di wax nit ki bu jàng xasida diir su néew rek day tàmbali mu yëg ci xolam ak sopp yooyu nag mbégte moomu man na koo jàpp ba mu tarxiis gaa ñu baax ni dañuy wax ne mbégteem xol musiba la ci ab ab murit ndax dañ daa yomb a tarxiis ba ni kii bi mën a tarxiis te dara wax ne da ngeen moytoo yëg seen bopp ndax ku yëg boppam yàlla réer ku yàlla réer seytaane ba mat ku seytaane ba mat ca safaan ba la jëme dala dem loolu dama bëgg misaal boobu ma koy jàngit na ko jox yitte te bañ cee gis daray boppam te waxtu ne loolu la def mu bañ mu fekk ko bàyyi xel ci li si ñu waxoon wa rubbama ibaadatin katira qad afsadatha lahzatan axiira dañu ne man laa jaamu yàpp bu bare bare bare bay benn la taxawee ne li ko doon dox ba sori ñu def la nit ñëpp kon loolu yooyu ne bu ñu ko bàyyee xel gis naa ne moom ëmb bi gën a gaaw